waaw salaamaaleykum chers internautes bu xibaar 220 TV ñu am mbégte ak yéen jàkkaarloog yéen ci plateau bi nga xam ne mooy plateau xibaar 221 tey nag ñu nekk ci diwaanu Kër Massar ci quartier bi nga xam ne moom la ñuy wax Aïnouma di amal li nga xam ne nii mooy ouverture lii di site internet bi di xibaar 221 waaye yemul ci li nu mel ñuy ubbi li tamit li nga xam ne mooy agent de sécurité boo xam ne euh, moom la ñu ubbi mu tudd ISO. ñi daal di ko iso nag ñi daal di ko dëppee koo xam ne nii yaakaar naa kenn dootu ko wax ci wàllu sécurité ci réew mi ñu nekk muy le grand expert maître Ndour Wade moom lañ nar a li nga xam ni moy agent de sécurité bi nga xam ni mom lañu la ñu ubbi fii ci diwanu Kër massa ci ay mat ak li nga xam ni moy xibar xibaar 228 bi waaye tamit bu ngeen gisee image di ngeen gis jëmm jo xam dotu ñuko présenter Sénégal muy seigne Habib Seck seigne Habib duñ def dara rek lu moy jokkoo mu ubbi li nga xam ni moy mbir mi ñaan gi waaye sëñ Habib nañ la wax ne la ñu lay dalal sa kër di la wax nak ne ñu ngi ubbi site internet ubbi li nga xam ni moy agent de sécurité waaye nag ñu ubbi ko ci jamono joo xam ne nag sëriñ bi dafay jar boo paree nga joxe ñaan waaye tamit dafay jar nga leeral jaam ñi ci jamono ji ñu ubbi xibaar ban jamono la ci weer wi ñu ko ubbi ban weer la ak naka lañ ci mën naka nga ko mën a firee bisimilah cheikh salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi leen di nuyu di leen ziare te di leen balu xaq di leen baal xaq yan yàlla boole ñu jégal bala may joxe ay ñaan danaa leeral tuuti rek xam naa dat bi moom ki ko joxe am na lu ko yàlla dénk <clears throat> ndax yaakaar naa tey la juróom-ñetti fan ci weeru nasaraan tey la huit ah, su fekkee weeru olof bi la tey la juróom benn juróom benn boo ci tegee huit ñaata la loolu mooy waxaabu kon fii day dox far force kon loolu mom mag ñee ko wax du man ma tanon bis bi dafa ñew mu tomber ma xam bu fekkoon ni bis bi amuñ ci li dañ koy famu kon dañu ñew fekk fi loolu kon baat lañ fekk fi mbokk yi di diglé né nañ jang kenn ku ci nekk ci jotaay bi ben fatihatul kitab ñi jang li ilaafi xoroy si ngeen bu baax bu baax serigne Cheikh ahmed Tidiane da ngeen di gis buy màggal wala buy gamu né jang leen quraysi da ngeen ben menal ko juroom ñatt huit loolu lanen la du wax du waxu fi mais danañ ko leral après inshallah taala kon nañ jàngal xorey sin yu juróom-ñetti yoon yu sell buñ paree fallaxe ak naaj ci lu ci ne ñi teg ci juróom-benn kon weeru olof bi mooy fallaxe bi ak naasi bi weeru nasaraan bi mooy li ilaasi xorey bi mu neex rek mu naqari day dox dana jiitu ñëpp bu soobee yàlla incha allah kon ñu dugg ci liggéey boobu dal di jox kàddu gi mbokk mi incha allah mu continuer liggéey bi bisimilahi rahmaani الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الناس ولكن سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناظر الحق بالحق والهاده إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره حق قدره حق قدره والمقدار العظيم شبهنا ربك بالعزة عما يذفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ñu delloo kàddu gi sëriñ Maysa mu jox kàddu gi ki war a jàllale yëf incha allah bismillah waaw jërëjëf si bi xol sedd ku la dégg dégg xam-xam lii la gars yi namoon ci yow waaye tamit ñu ngi lay wax ne la ñu ngi lay xaaraat ndax gars yi ñu ngi laajte Cheikh Habib Cheikh Habib anamu anamu anamu anamu nit ñi namm nañ dégg say kàddu alhamdulilah lii firndeel na ko ndax gis nañ xam-xam yi nga xam ne nii génnee nga ko ci diir bu gàtt rek xamal nga nit ñi ci date bi ñu jàpp xibaar 221 du date boo xam ne date bu hasard la waaye mbiru yàlla la donc bépp ñaan buñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu waaye ñi fàttali rek ne du xibaar kese. wax naa ko sànq sama njëlbéenu wax dafa am agent de sécurité bu ñu wax ISO mais ISO boobu dañu ko tuddee kenn koo xam ne nii tey koo xam ne du koo xam ne Sénégal doot nañ ko présenté muy le grand savant Maître Ndour Wade koo xam ne dafa ñëw jàng xam-xam boo xam ne ci wàllu sécurité tey dama doon wax ne bu ñuy fal général la waroon doon wala mu nekk ministre de l'intérieur bu ko nekkoon rek xel yëpp dinañ xel yëpp dinañ dal ngir ñëw sauver ay ndaw xam na ne ndaw ñu bëgg nañu wàllu sécurité mu jaral ko mu wàccaat tubaab yi naan ko kaay ñun yow la ñu soxla ay million ya ngi nii mun a soxlawu ma million dama ñëw sama réew ngir defar ndaw ñi ndaw ñi bëgg nañu wàllu sécurité te ñu ngi ci mu ngi leen di jaral lu ne donc dama dem ngir defal yu nu mel kooku moom la ñuy dëppee agence bii nga xam ne nii moom la ñuy tey mu nit koo xam ne boolewul daraa ki wax sauver ay nit dama koy wax nee naa ko da nga sauver avenir nga sauver parce que bu fekkoon ne ma damaa jàng li ma jàng nekkul noonu nga ñëw gindi ma ne ma nii nii nii la kon kooku sauver na avenir kooku mooy le grand le savant ki nga xam ne ma dama koy faral di bakkee na ko bu njëkk ba gars yi bu doon jàng dañuy dañ lañuy jàng sotti yi lañ doon def ci moom ci la sotti andragogie amee dañ doon wax jàngum xale rek moom nag moo ñëw andi jàngum mag donc kooku moom la ñuy tuddee agence bi nga xam ne nii mooy agent de sécurité boobu duma def dara lu mooy jébal kàddu gi ki nga xam ne nii mooy euh, le grand journaliste ah bu ko defee moom mu wéyal programme am Euh, di am mbégte bu baax a baax rek di nuyu gars yi nga xam ne ñu ngi fi ak ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers Xibar 221 TV encore une fois di la santaat di la gërëm di ñaan yàlla yàlla na yàlla yokku xam-xam bi euh, bég nañ béggati nañ la ñuy wax ndax yàgg nga ñoo sigil waaye di wax tamit xibaar mu ngi waaj ànd ak yow ba Saalum incha allah ñi jëmmal fa lañ fay jëmee incha allah kon boog Elmat ñu bàyyi la nga continuer sa programme. mbokki euh, Sénégal maa ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam tey ñi ngi sant yàlla bu baax di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk fi nga xamante ni moom mooy 46e département di Kër Massar euh, mbokk yi loolu bu ko njiiti réew mi defee yàggul lool euh, tey nag ci biir Kër Massar euh, ci biir quartier yi am na fu ñuy wax ay numaati mu nekk quartier boo xamante ni mbokk yi boo ñëwee bu foofu rek nga jàkkaarloo BOA banque bi. fofu la li 8 janvier 2022 ouverture euh, campagne bi démarrage officiel campagne élection locale 2022 territoire national mbokki jël li nga euh, euh, organe de presse ak li nga entreprise am bi ak hein, inauguration officielle mbokk ki nek sama wette nek madame la directrice di Fatimata Diakhaté moom moo coiffé l'administration bi mo nek ni ngeen wette ni ak ñom amilo euh, ma jox kenn ku nek rek dal di def sen présentation da te ñu dem euh, madame la directrice salam salaamaaleykum. maaleykum salaam Elmat. Euh, Sénégal yaa ngi lay sétane ci li bëss bi nga xamante ni mo inauguration officielle bu groupe Xibaar 221. pali de l'actualité lan ngay wax ci lolu di la fay bu baaxa baax di jaajeufal ñi fi nek ñep Cheikh Habib ñu ngi lay jaajeufal bu baaxa baax di kontaan nak ci déplacement bi di. koy nuyu bu baax a baax PDG Tambédou du nuyu ñëpp ñu fi toog muy ay journaliste ay euh, technicien mm-hmm. di wax rek Elmat loolu dafay nekk loo xamante ne ni dañuy kontaan mm-hmm. mbégte rek la ñu am ndax bu ñu ñëwee tey jii di lancer li nga xamante ne nii moo di ay programme officiel yu xibaar 221 mm-hmm. dañuy wax ne loolu sant yàlla la ñu ci kontaan bu baax di wax ne sénégalais yi xibaar 221 seen mbir la mi ngi nii ñu ngi leen di tàllal loxo muy ay autorité wala muy euh, sénégalais lambda bi di wax ne seen média la seen lépp la disponible na seen ay côté lu jëm aussi ci wàllu sécurité bi wax nañ ko léegi mu mhm. ànd ak benn agence de sécurité mundu ISO mhm. ISO nag nekk li nga xamante ne day yëngu ci wàllum sécurité lu jëm ci ay garde rapproché wala lépp loo xamante ne ni rek soxla nga ko mu jëm ci wàllum kaaraange boo ñëwee fii peut-être di nga ko fi fekk mhm. am na ñi nga xamante ne sax seen xam-xam màcc na jëm ci loolu peut-être bu ñu jëlee kàddu gi dinañ ko gën a yaatal waaye du ñu def rek lu dul kontaan di tàllal suñu loxo sénégalais yi di leen wax ne la ñëw nañ peut-être di ñaan yàlla nak lépp loo xamante ne nii rek tàmbali nañ ko ñu am ci succès bu baax. madame la directrice di Fatima Diakhaté donc mbokk yi dañuy continuer ba euh, jox Amilo nek si ñun yore lu mel santé euh, ak commercial bi euh, Amilo salaamaaleykum. maaleykum salam Elmat. Mhm, nuyu la ak ñi nga xamante ñoo lay seetaan. maa ngi lay fay maa ngi nuyu téléspectateur 221. Mhm. di rafetlu jeetaay bi. inauguration bi nga xamante ne euh, sëñ Seck sëñ abib Seck teew ci ñaan yi ñaan ñuy ñaan yàlla nag ñaan yi nga xam ne ñaan na ko fi yàlla nangul ñu ko amin allahuma amin yàlla nangul ñu ko di jaajëfal sunu PDG Dame Tambédou di jaajëfal ñëpp di wax Kër Massar ne leen ne xibaar 221 ñu ngi leen di tàllal seeni loxo ñëw nañ ci seen biir mu ñu ngi fii mm-hmm. Kër Massar en face Banque of Africa bi luy xibaar luy information luy santé luy lépp ñu fi équipe bi xana di jaajeufal équipe bi nga xam ño fi nek muy cameraman, cadreur technicien ñep wa ISO inter business wu ma len ndax ñom tamit bés bi ñu ci biir ñun ñep la ñun ñoy inaugurer bi bés di 8 janvier ñu ngi leen di jaajeufal lu bëree. mbokk yi ba tay limu ma leen ko waxee rek ñu ci inauguration officielle bu groupe Xibaar 221 tolloo tay 8 euh, janvier 2000. 22 mu toll nag bés bi nga xamante ngeen di ko fàttaliku euh, dañuy dal di continuer rek suñu équipe bi euh, gis ngeen ko macha allah mu nii ni euh, muuruwaay yiiwu ah mbokk yi ñu ko jox mu dal suñu présentation. salaamaaleykum di leen wàccee seen wàccuwaay di leen ñaanal tey sàkku seen ñaan bu baax. di wax alhamdulilah parce que suñu sëriñ bi li ñu fi wax macha allah. Chérif Habib Seck donc ñu ngi waaw ngi lay ziar bu wër macha allah. Mm. Euh, di wax ne macha allah xibaar 221 mi fi euh, teewal fi Kër Massar teewal fi àddina bi yëpp incha allah. Mhm. ci seeni waaw rek la ñuy dem incha allah. ndeysaan mbokki euh, télévision wala groupe de presse da ngay gis euh, façon xeet bu nekk bu fekkee tàng dañuy tàng su fekkee dañuy yéewal dañuy yéew bu fekkee dañuy sedd dañuy seddal dañuy continuer ba tey rek góor ñi jigéen ñi jox ki nga xamante ni mooy suñu ba tey si naataango euh, nuyu naa la. waaw fay naa la sëñ bi. nga jàkkaarloog caméra bi nuyu waa Sénégal yi ñuy seetaan ci xibaar 221 point com. waaw asalaamaaleykum mbooloo mi. maa ngi leen di nuyu maa ngi nuyu sëñ bi di rafet la di rafetlu teewam bu baax a baax si jotaay bi yal na yàlla nangu ñaan yëpp ak li ñu fi def voilà man nag euh, Abdoulaye Sy laa tudd en tant que informaticien technique mm-hmm. waaw euh, xibaar 221 bi ma ko gisee euh, bi ma fi ñëwee accueillir nañ ma voilà te man si wàllu lii laa yëngatu wàllu digitalisation mm-hmm. te incha allah dinañ ko booster ba mu dem fu fu weesu suñu njort loolu la ñuy ñaan mm-hmm. ànd ak liggéey bu sell te wér macha ñu jàllale lepp inshallah merci beaucoup ma ngi di sant di leen gërëm. mbokk yi dañuy ñëwaat ci benen euh, benen rubrique bu ndaw euh, gëna a détaillé tuuti mbir xam nga bu ñu euh, journalisme am na lu wax communication ay xibaar yu wër nek dëgg ci actualité ci politique ci santé ci sport ci économie Kër Massar am ngeen lu bees moy dañuy ñëw ci Fatima Diakhaté madame la directrice ma jëm ko laaj laaj bi ma koy laaj mom madame la directrice mën nañu wax na ci organe de presse bu nek ci Kër Massar bu njëkk. jigéen di ko nekk di directrice loolu sentiment bon la lay def madame la directrice. Euh, dafa may def sentiment boo xamante ne nii doo ko sax mën a expliquer. Mhm. parce que da ngay kontaan mun naa wax ne mbégte mu rëy la mais tamit yenn bu diis la boo xamante ne nii dañuy ñaan yàlla rek yàlla woyofal ko. te gëm naa ne sax dina woyof parce que PDG Tambédou. Mhm. peut-être li mu def c'était pas évident. Mhm. nga ñëw xool jigéen boo xam ne mën nga wax ne sax ay atam tollut noonu. nga ñëw ne ko naa la. dénk naa la yaakaar naa ne yaakaar boobu mu am yàlla du ko tas te loolu la ñuy ñaan yàlla kon moom la ñuy jaajëfal bu baax a baax je mm-hmm. vois que ne exemple la boo xamante ne nii euh, ñëpp bu ñu ko toppee mm-hmm. Sénégal mën na dem fu sori parce que boo ñëwee nga teg say mbir li mu teg nii tegu ko pour boppam daf ko teg pour ñun mm-hmm. ay jeunes lañ peut-être jàng nañ am nañ ci peut-être benn xam-xam bi mais mënuñu ko woon taxawal kon bu ñëwee moom taxawal ko ñëw ne ñëw leen ñu bokk liggéey kon loolu ñëpp dañu ci war a jàpp mu nekk exemple boo xamante ne nii damay lancé képp ku nekk Sénégal muy autorité muy chef religieux ak loo mënta doon ñu jàppale ko xam ne lii mu teg tey jii nii Sénégal la ko tegal ay doomu Sénégal la ko tegal kon dañu ciy am contentement bu mat sëkk tey tàllalaat loxo rek merci ba tey madame la directrice xam nga lu mel ni euh, ku yore organe de presse nit ñi dañ seetaan mhm. euh, ñi ngay ñi lay seetaan ma ndax ma leen garantie tey lu mel ni réseaux sociaux mhm. ku koy xoolaan da ngay tayal parce que wax ju bon def ju bon est-ce que mën nga garantie nit ñi euh, programme bu am solo ci Kër Massar Sénégal dana génn ci xibaar 221. di wax ne rek xibaar 221 peut-être dafa ñëw taxaweewaat beneen tank, dañuy faral di wax presse en ligne bi ñu di leen sànni xeer et tout peut-être nañu ci liggéeyee la ñenn ñu du mën ñëpp. mais di len rassurer rek né xibar 221 comme ni ñu ko waxé rek palais de l'actualité. nañu japp né lépp lo xamné xibar la tam amal la njëriñ réew mi. dinañ len ko jox ci anam yu mucc ayeb ci lo xamanténi ni kilifa mën dina ko mëna sétane xale dina ko mën a seetaan ak domaine boo mënta yëngatu rek jàppal ne boo jëlee xibaar vingt 21 nga dugg fa information bi nga xamante ne nii soxla nga ko di nga ko am. macha allah beneen kàddu gu mujj gi fu may tënkee rek mooy ku ne xam na ne ñu ngi ci campagne euh, électorale bi mu nekk fukki fan ak juróom. Euh, candidat bu nekk fësal programme am moom ak gox gu mu nar nar a jiite euh, commune am mais madame la directrice est-ce que am nga élément suffisant bu permettre ndax bu la waa Kër Masary candidat bëri nañ lool. Mhm. ñu ne la directrice yi suñu. service commercial bi ndax est-ce que assuré nga euh, am nga équipe bu taxaw pour couvrir euh, campagne électorale bi. machallah lolou tamit xel meun na ci dal. Hmm. parce que bo xolé équipe la bo xamantene ni nii ami wax na ko léegi. Hmm. jëm ci walum santé. Hmm. am nañ ci équipe bo xamantene ni ñoko gérer. ci sport walu sport tamit amna fi. jëm ci walu politique moy li nga wax légui campagne bi ñu tijji ko tey. ñu ngi talal loxo kandidaa euh, yi nga xamante ne nii ñoo nekk ci Sénégal yëpp rawatina fii ci Kër Massar mhm. di leen wax ne la am na benn équipe bu jeune dynamique bu fi nekk mhm. mën a yëngu ci loolu tey jii ku ñu contacter yaakaar naa ne boo ci paree li nga ci doon wut di nga ci am loo xamante ne nii sax kawe nga sa njort parce que nag am nañ yaakaar ne li ñu teg jëm ci wàllum matériel jëm aussi ci walu personnel. mën satisfaire képp koo xamante ne nii ñëw nga envers ñun. ñëw nga awale mais mbokk yi dañuy dem fi nga xamante ni euh, xibaar 220 groupe la waaye yemu rek ci xibaar ah mais yem ñëw na ci lu mel ni sécurité. réew mi ñu bokk muy réew mu euh, Sénégal ku ne xam ne lu fi xewoon ci mois de mars bi euh, jeunesse bi jog euh, frustré yu lakk ay bagaasu jàmbur sécurité bu fi nekkutoon dëkk bi na doy waar ba tax ne ki nga xamante mooy Ahmadou Tambédou borom groupe Xibaar 221 dañuy dal di jox benn kilifam ki nga xamante ni wala mu dal di ñuy wax tuuti ñu nuyu lañ sëriñ bi ñu ngi lay nuyu man nag laxaat diina mhm. maa ngi leen di nuyu assistance bi mhm. di nuyu mbokki Sénégal ñu ngi seetaan mhm. di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi seetaan moom xibaar deux cent vingt et un di sant imam tamit initiative bu rafet bi mu jël euh, xëy na mën naa am ñu mu bett waaye ñu mu bett ndax euh, yàlla dafa dogal ñu bokk benn promo bu ñu jël en tant que cadre formateur en sécurité et sécurité ñu ngi première promotion bi

ndeysaan. parce que yàlla dogal na am na ay responsabilité yu bëri mooy wàllu sécurité tey jii nii. Mhm. am na fu bëri fu ma waroon a teew. ndeysaan mais bi ma nee moom mooy pare bi dem ci biir moom day 11h passé bu fekkee 23h et quelques. macha allah dama ne ma bañ a teew ci bisam. dëgg la dëgg la moo tax loolu moo waral sama teewaat. kii di nit ku baax. nit ku am diine. Mhm. nit ku yaru. Mhm. doon kilifa teew ko wàccee boppam. ba yemale boppam ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi ñuy liggéey. macha allah xëy na yàlla dogaloon na moom mooy seen kii. dëgg la di sant nag di gërëm tey ñaan xibaar 221 bi yàlla yëkkati ko ba nga xam ne. dana kawe jox tam moom. nga xam ne ñoom lay àndal ci liggéey bi. ci wàllu sécurité yi tamit mën naa wax ne waa Kër Massar mën nañoo dalal seen xel ndax am na équipe bu sécurité boo xam ne nii wax dëgg yàlla lu ñu yaakaar ci ñoom war nañoo mën a am ñoom kawe seen yoon.

kilifa gi lañ doon wax kii mooy Mouhamadou Mourou Mat un ancien du GIGN tey bu ñuy wax tey GIGN fii Sénégal li fi taxaw li fi li fi moom li fi ñuul li fi ñàkk moom moo ko forñe moom muy mooy jëmm ji ma doon wax sacrifice yu mag a mag la def pour former les formateurs parce que gis nañu sécurité fii au Sénégal dafa am problème parce que ñi nga xam ne ñoom ñooy formé waate seen formation baax mun a kon nag

agence boobu nga xam ne moom lañ tuddee muy agence iso de sécurité boobu tey tur ba dañ ko dëppee ki nga xam ne ni mooy grand savant maître Ndoye kon maître ñu ko lañ la tàllal micro bi kon yëg nga am tey bi nga jàngale ñu ba tey mu tudd di taxawal dara delloo waat waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu ci nekk surtout sant di leen ñaanal jàmm di leen ñaanal jàmm seen jaboot di ñaanal jàmm aussi si lépp lu ñu wër ci mbas euh, bi ñu si yàlla defal ñu si sutura. ñu ngi fekk ci ñi koy nettali ëllëg. waaw euh, may sa nag ma laaj lan laay yëg tey. <laughs> yaakaar naa ne euh, li ma yëg moom mënu ma ko wax quoi. Mm-hmm. mënu ma ko mënu ma ko exprimer mënu ma ko wax quoi. Mm-hmm. mais may bàyyi rek ma dajul sama biir xol yi. di ko yëg ma daw sama biir dërër voilà mais pour wax ni que bon du ma bett déjà ci imam Tambadou. Mm-hmm. yaakaar ni ne xaw ma ndax avant daan ko woowee imaam waa wala déet imaam bi si ñun la jógee ci man mi la jógee yaakaar donc c'est pas pour rien ma ko ci lu 34 élèves ko imam parce que am dafa lu ma gis ci moom te loolu ba léegi mu ngi moo tax ñu lépp du lu ma bett du lu dama koy dellu di ñaanal rek may ko ko fi ba ci kanam kanam kanam parce que

kuma wani mata dama an imam ndax dafa wane boppam ko donc li natal yëpp c'est pour wane ne rek lii du ñun ñu ko matul at de ñoom ñi ñëpp bu leen matul at mais lima am si ñoom yaakaar naa ni j'ai dépassé la cinquantaine mais amaguma en moins d'un an am naa loo dund ans donc euh, imaginez un peu suma

waye suma élève élèves ñoo fa nekk donc ñom dañoo yëf seen bopp ba ne ay kilifa la ñu mënuñoo bokk ak seen doom mënuñoo bokk ak seen élève ñoo jàng <laughs> ki nak dafa waatu dafa gaddu wa këram ñoo tok ak ñoo donc mu ngi doon <laughs> donc voilà pour wax ñu gën a bañ a may dellu nak di nuyu suma grand pok nga xam ne nii lépp lu ma def man ak Allah lépp lu ma yëg man ak moom la lépp lu mu yëg man moom la day jógee ba Dugar pour ñëw bàyyi otoom dafa paan fa la ko bàyyi jël ba tey ñëw uniquement ndax tàggat yi lii nag di woowee ne que di leen wax aussi du yéen ñoo ko moom ah wax naa ko ko démb nee naa ko li nga def nii yow yaa moom. xamal ni que euh, parce que dafa am mbooloo nag ci gannaaw. Mm-hmm. aussi muy la formation en 2S. Mm-hmm. Euh, formation f 2 mm-hmm. am Sénégal. mu ngi doog am Sénégal. ñoom ñoo ko fi a def. fu nekk def naa ko Afrique dëkku naar Sénégal mu ngi fi am te ñoom ñoo ko fi njëkk def. moo tax c'est ay exemple lañu ay référence lañu te fii ak 10 kanam. di ngeen dégg allah yàlla yàlla may. amiin amiin yàlla dafa euh, macha allah met bu ñu déggee kàddu gi rek. allah waaye di la firndeel tamit di la wax ne la ba ngay jàngale dafa am exemple yoo xam ne wane ngoon nga ko ca école ba di jël ay jigéen di leen jiital ñi xamal rek ne sa élève sa waay imam moom it mu ngi ci tànk yu ni mel. kooku mooy mooy exemple. Ah. man bi may ñëw fii dugg sécurité dama ne jigéen ñi laa jël teg ci kanam. macha allah la wax naa leen ko wala wax jigéen ñi laa jël teg ci kanam parce que àdduna bii. Mm. ah nga bañ ko wala nga bëgg ko ñoom la de. Mm. bii ñëw ëllëg yéen la. Mm. kooku moom yàlla moo ko def. macha allah nangu rek.

ñooñu tëdd nekk jigéen ñoo xam ne ñoom la dëppee yi di bës lépp rek di tari li nga xam ne moom lañ leen jàngal donc ñu ngi lay wax ne sa élève sa xarit sa imam mu ngi ci tànk yi ñu sàkku rek mais ñaanal ñu yàlla tamit duñu wax mukk te waxuñu àdduna wala ñëpp ne leen jëmm ji taxaw ku gis maître gis ko moom it mu accompagné ci moment yoo xam ne nii moment yu la mu mënoon ko waru yaram mayu mu accompagne ci yenn yi mais dem na benn moment sax man moom moo ñu sauvé ci yenn yu yu ñu waroon a teg ci yenn métier parce que du nangu buñ ne hop <laughs> appui avant moom dafay appuyer te pourtant wër gu yaramam may ko ko mu mujj gi met ci moom lay sukkandiku sax bu ñu naroon a dërëj sax daal di wàññi loxoom donc lu ñu def dara moom it lu mooy jox ko kàddu mooy mu am kàddu yoo xam ne dina ko ci jiwal. waaw a fàtte woon bi. <laughs> saafarata surtout mooy jëm ci tur bi daal. naa moom bi ñu jot ma leen di ko jot pour woon donc pour vous dire ne que parce que daf ko mérité association bii doog am Sénégal lan la ci doon. secrétaire général adjoint. c' est pas pour rien. dafa am fu ne ah.

ki mooy Niang man Trav Mamadou Niang. macha allah di suma rakk. macha allah di suma xarit. macha allah di suma lépp. Euh, stade bi jógee ci àll bi ci région yi. Mm-hmm. ñëw am ay programme yu war a war a dem tey Thiès heure bi sax la ko rafet. muy mm-hmm. animé ay séminaire mm-hmm. mais damaa juum yónnee ko affaire bi parce que su ma ko parce que ci ma la bokk. yónnee ko affaire bi mu ne ma mais grand yëguma ko de mais damay ñëw de. ma ne ko non da nga am programme ne ma non non yow loo ma kii rek c'est parce que ay ñor na la. <laughs> mu bàyyi lépp ñoom ñu ngi ñaaw donc ñaa euh, aussi mënu ma ko ñàkk gërëm parce que ma daal yëg na ma trop donc ba mooy sant ko sama bopp ñaa vraiment maa ngi lay sant di la gërëm ñëw aussi doy sa président waaw daal di jox euh, maître bopp boo ko defee moom mu sànni ay kàddoom asalaamaaleykum wa rahmatulah euh, ginnaaw bu ñu sante suñu borom jon mm-hmm. sa selam mm-hmm. ñu leen di ziare mm-hmm. di nekk sukur aso sant leen jox seen wàccukaay di leen tatagal di leen baal ak di leen baal ak di vraiment dañu kontaan ci euh, li ngeen taxawal nii vraiment c'est une initiative parce que même temps bi du nii yàgg nañ ñuy jokkoo ñu mën a wax ay mu ne ko say ambition nag ak képp ci mën a liggéeyal dina la ci accompagner

donc li ngeen euh, demul nii yàlla yàlla def jàmm jàppale ngeen jëm kanam donc maa ngi félicité ñëpp ñëpp nag parce que ñoom vraiment dañu neex a liggéeyal moo tax ñu aussi mën leen accompagner ci liggéey bi xam naa rek dañu tàmbali nekk mais fu ñu jëm ak ñoom moom ba suñu soobee yàlla ba suñu parak ñoom ñoom dañu nekk euh, bon xamoon ku wax ne high class quoi. boobaa kenn la woon ci sécurité. soob yaa jërëjëf. waaw macha allah comme ni ko waxee rek waaye tamit euh oustaz ñu lay séedee ne jëmu ji. waaw xëy responsable. te yow demee si ñoom. asalaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu toute l'assistance. et comme maître ni ko waxé rek. c'est c'est un grand jour et puis c'est tellement émotionnel vraiment mënuñu ko mesurer quoi vraiment si dafa dafa rëy quoi dafa rëy mais Kambine aussi dafa doon koo xamante ni si euh, maillon la de la sécurité et suñu tolloo fii tey ñu ñëw sécurité tey tolloon ci si Sénégal koo xamante à chaque fois dañ leen dégg défaillance yi xam nga les nervis problème yu bëri ñu demoon ba xam un on un problème donc le mal c'était quoi c'était trouver la solution yàlla def comme ni ñu ko waxee euh, mettre ñu waat jëm di taxaw bon mu ñëw rek Euh, forcé nañu yéen seen problème solution bi problème formation problème formation de Sénégal am sécurité Sénégal am léegi nag pour ñu former yoon bii lañuy jaar te te dafa gëm aussi metti woon na trop mais mu mu gëmloo ñu yoon bi tracé ko rek ne ñu fi ngeen di jaar mais yàlla def na bañ ci commencé tamit ñun gis nañu effectivement li mu doon wax am na te comme ni mu koy waxee aussi